Mawla الحميد اليوم هذا الكثير غادي يطوف الغار والنار والسقا نبس لقال الله يا جبرات الله بذكر الحكيم الحمد ñoo ngi leen di nuyu leen jaare bu baax a baax di lu seen teewaay ci bis bi ndax euh, woote bisu xasida ngeen ñëw si waaw waajtaay wi nag nekkoon na waajtaay wu xaw a difficile ndax yaakaar naa bi mooy première fois euh, ay ndaw yoo xamante ni école la ñuy jàngee jàngum surtout ñuy jàngum français ñu organiser benn journée xasida bu toll nii yaakaar naa c'est la première fois muy am fii ci ci diwaan bi ñu nekk nekkoon na lu jafe lool nag waaye yàlla dogal na réussir nañ ko ndax kilifa yi teew nañ mbooloo bi ñëw na xasida yi ñu doon fi séntu yi ñu doon séntu ñu jàng ko fi euh, mbir euh, lim bi kawe na njot loolu pour le moment nii kon daal ñoo ci sant bu baax a baax di ñaan yàlla nanguñ suñu liggéey di tamit suñu mbokk élèves yi xamanteni ñepp jaayante ñëpp a jaayante dañ leen jaral sax ñu def cour ngir sunna sunna xasida bi di sante ñepp danaka daanaka ñu lim ku lim jum motax danaka dal ñoy sante ñepp señ bi ñi ngi ziare di nuyu ñepp di leen ziar lu bari bari ah bis bi nak mën nañ né comme bis bu mel nii première édition bi la sunna xasida mais daan nañ amal. ay bis yu mel ni chaque année comme yu bari bari chaque année daan nañ am bis yu mel ni ay genre ay cant yooyu mais tey nag dañ koo baptisé tuddee tuddee ko journée xasida journée xasida comme nii préparation bi nag ah, yàgg na parce que biñ biñ nekkee ci gouvernement bi ba léegi biñ nekkee njiitu école ba léegi moo nekkoon suñ premier objectif ñu koy préparé boobu ba léegi ñu nekk ci élèves yi jàpp seeg ñun ànd seeg ñun wéetu ñu si suñu jawriñ yi ñu fi ànd ak ñëpp nekk seek ñun ci liggéey bi maanaam liggéey collectif la liggéeyu mbooloo la liggéeyu te li ñu wax mbooloo mooy mooy doole te loolu wane nañ ko ci école bi école bu jàppoo la wane nañ ne école sëñ bi la ñu koy jàppoo ngir Serigne Touba loolu daal maanaam maanaam dañ koo am ci école bi ba nga xam ne dañoo gëm sëñ bi ba nga xam ne maanaam lépp bépp bu ci am liggéey Serigne Touba ñun ñëpp ñoo koy jàppandoo àndandoo xëbandoo ko daanandoo ko moo tax liggéey bi daal métti na métti ndax liggéey Serigne Touba li taxoon ñu weesu bés bi waaw am nañ ko si manam mbégte man na né am nañ ko si amuñu ko ci parce que mënuñu wax am waye dañuy ñaan yalla am ko si muy lan muy fayub señ touba yaakaar na loolu dañuy ñaan yalla ñu mu mayñu ko loolu mom luñuy ñaan yalla la tay ñaan parce que yene ji dal mu ngi fi tay bëgg-bëgg bi moy lenn rek motax ñu euh, fatal bi muy liggéey señ Touba tay ñi ngi ñaan yalla mi yar fayam mu fay ci si réussir biñ ci bëggoon mom bu fekkee côté bobu la gëm na ne am nañ ko si alhamdullilah sama mbokk élève yi may wax ci manam kàddu bu may répété la ndax du ma jug di leen ko wax muy lu ci mel ne liggéey Serigne Touba ñu nekk ay ndaw ah, dañ koo war a gën a mën a fonk gën koo mën a respecté gën koo mën a jox cër lépp li nga xam ne moom la war amut ndax liggéey bi li muy wax souvent amul tànk ginnaaw bëri ko la ci mbartan pousse mu dem ñàkk pousse mu dem te heure heureusement alhamdulilahi rabbil alamin ba tàggat nañu si suñuy waajur ay doomu tuubaa lañ tàggat nañu si ba nga xam ne liggéey Serigne Touba dañ ci am passé waaw waaw kon loolu daal yaakaar naa amuñu si problème wàllum yàbbee côté éducation mooy maanaam benn lu ñuy xamal rek fi école la mais tamit ay doomu Touba lañ te yarum doomu Touba tamit maanaam dañ ñoo jar sa kër gi ba noppi école bi tamit dañuy mottali rek parce que yar bi moom ñun ñëpp ay ndongo daara lañ yaakaar naa yar bi am nañ ko sa daara ja am nañ ko suñuy waajur école bi tamit ñu ñu si yokk bu baax a baax parce que lu ci bëree bëri luy may ci colin geek colin geek muuraay beek yooyu yëpp. école bi dañ ciy def seen liggéey bu am solo ba ci watis beek maanaam maanaam fii daal man naa ne kër kër la kër Sëñ Tuubaa la kërub la école la dañuy jàng français mais du ñuy ay français waaw loolu daal mooy wax bi maanaam loolu heureusement bañ ko seqee wax kër Sëñ Abdou Lahad ñoom amuñu caaxaan yaakaar naa kon groupe privé Sëñ Abdou Lahad rek maanaam tekki na lépp maanaam ñun ci ci ci kër Serigne Touba école lañ mais ci kër Serigne Touba te it suñu objectif mooy mottali liggéey Serigne Touba ci xam-xam bi bi nga xam ne mooy xam-xamu nasaraan loolu rek mooy suñu activité bi mais bu fekkee euh, mouridisme mu rek ak lépp li nga xam ne mooy ci wàllu murid ak lépp li nga xam ne luy bëgg Serigne Touba loolu rek moo nekk si ñun waaye ñu dara ci tubaab bi lu ñu lu ñu doy mooy sëñ tubaab mi nga xam ne yàlla boole ñoo ko te loolu tamit école bi ma ngi siy jàppale te képp koo xam ne ma ngi ci école bi loolu tamit ma ngi ci ba ku gis suñu bourse rek yaakaar naa wane na lépp bi rek lañ yitewoo mais euh, mais pas jukka ji waaw xam bi rek lañ yitewoo mais li woon a jukka ji parce que xam bi daal mooy am solo te xam bi pour liggéey Serigne Touba moo tax ñu soxla te loolu rek la ñuy wax. waaw bis bi euh, dañ ko daan def chaque année euh, dañuy dañuy def fii nii ab xasaayit wala ab cant wala ab siyaar bu ñu xoolee nag année bii passé ak année yi passé yëpp dañu daan def cant mais bu mujj bii mujjee def nii dañoo def ab siyaar boo xam ne dañu ko amoon euh, maam si Mountakha Mbacké léegi nag ren jii nag bu ñëwee fii élèves daal di sàkku daane bëggoon nañu surna xasaayit nga maam surna xasaayit boo ko wootee daanaka mur yëpp nga ci woo te euh, moom mooy gën a yaatu loolu saboobu bis bii nii euh, boo ñu waree ko tey boo yii nii waaw tey la ñuy doog a tàmbali bis bu mel nii maam surna xasaayit bi waaye daana amoon ay ay ay sono cant ak ay siyaare yooyu noonu hmm? waa bon programme ni ñu demee mooy dañu xëy suba de 9h dañu xëy suba 9h ñu def euh, lecture du Coran jàng alxuraan jàng xasaayid bu ñu paree tamit ñu woo yenn kuréel yi nga xam si mën nañ fiy jàng ñu jàng fi ak yeneen jàngkat yu mag tamit maam ñu jàngale fi bu ñu si loolu tamit ñu woo suñu professeur ñu ñëw waxtaan fi euh, waxtaan fi bu ñu paree ñu jox soxna may laat euh, mu laa tëj noonu lay programme bi daan demee. waaw suñ bëgg-bëgg daal mooy euh, balaa vingt heures lépp daal mat ndax xale yi fi nekk yëpp nañu buwaat jàmm yooyu waaw xanaa di soññiwaat suñu mbokk taalibe bi yëpp du ma wax sax euh, sama mbokk élèves yi <laughs> ndax journée yu mel nii yaakaar naa dafay war a am bis waaye comme que ak xataay jamono yooyu noonu moo tax daanaka da ngay tànn benn bis ci at mi rek ñu koy amal xanaa di gën a soññiwaat mbokk euh, mbokk murid ak mbokk taalibe yi te da xamal ne daanaka moom jamono ji mooy des moom lii moom def mooy liggéey suñu Tuubaa dañu gën a soññiwaat rek di gën a soññiwaat mbokk élèves yi ñu gën cee jàpp baax a baax ndax ñu bari walim ma bu ñu gisee ñu jàng France dañu jang France nangam nangam waye dañu boole ñaar jang France ak jang leen leen ndax bo xoolee mbokk talib yu bari bari nek fi jang France dañu jang alcorane pa dog fay ñew kon daal dañ gëna gën a ñu gëna fonction di rek ak liggéey suñu tubaab bi ñu nek ni ni ñi nga waaw laaj boobu de donc te yar bobu doon lo xam ñun deug yalla suñu digënté yalla lañ wax sét nañ ko sét nañ ko ci ndongay ba taxna daani kay jafé jafé yi nga xamé ni lélé di nga ko dégg ci yenn école yi nekk ci biir Sénégal ñun ñun wax deug yalla jankonté gu ñëw yooyu ci ci ci fi ni parce que amna yar bo xam nekk na ci ñom likoy firndel rek bokku na ci mel ni ak école yu bëri tay boo fa demoon tey ci biir réew mi bu école di waaye tej dañ def ay ndaje ma ndaje ci def daanaka ay pok ay yo xamni ne daanaka loolu suñ borom gërëm en général lañ fay def ñi ne bu ñu bu journée khassida déjà loolu rek wane na wane na seen way donc ba taxana ñun dal wax dëgg yàlla ndongo yi euh, nakré wu ñoo jangal bëgg gi amna yar bi amna administration bu rigoureuse bu am compétence amna ba taxna loolu euh, yomb na lool yomb na lool wax te bis bu melni ñun janggal kat day am solo élève bi jël diplôme bi ko jàngal yaa ko jàngal li ñu wax savoir faire savoir être ci lu ñu jëf ñu mënee jëf ñu nekkee bi si mel ni nga gis élève bi ci beneen cadre bu bokkul ba nga ko da nga gis tabaa bi mu toog nga gis ko mu jëf di di jëf di def di wax loolu benn cadre la boo xam ne yaa koy observé di ko xool daan est ce que li ma doon def ci moom est ce mi ngi appliqué dans la vie donc bis bu mel dafa am solo ci kat bi muy xol ndongo bi doon jangal ndax mom savoir être bi ko doon jangal ak savoir faire bi ko doon jangal ndax mi ngi koy jëfandikoo tax bisu meli, dafa am solo trop trop ci kat bi bu lok suñu jot sa jot maye nga ñew tok xol bokko ndongo yi am solo trop trop trop ci ñun ndax bax parce que mbir mi du instruction kasse dañ instruction ak éducation sol xam-xam mais xam-xam bu fa yar nekul, maanaam dañ naan amul njëriñ donc kon bis yu mel nii bu ñëwee jàng xool gone yi gis ni ñuy liggéey ni ñuy jëflante seen biir ni ñuy jëflante kilifa yi ni ñuy jëflante gan yi ak ni ñuy mën a liggéey xam nga góor takk laxasaay dugg ci waañ wi jëf nga xam ne ah kii kat la moo doon jéem a def ci moom xëy na bu lépp nekkul it ñu ci yoon wi kon ñun loolu bis yu mel nii da leen ci encourage bu baax a baax a baax te lu leen ci mën a jàpp lañ tax jàppale leen ko ci. tey ginnaaw bañ sant yàlla jull si di sant suñu ñaari waajur di sant suñu Muntaxa bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi ñu ngi leen ziar bu baax a baax ci teewaay bi di kontaan bu baax a baax ci initiative bi nga xamante ne élèves ñoo ko jël. waaw bis bi euh, initiative bi du leen loo xamante du leen dul ay xale yoo dañoo teel am li nga xamante ni mooy ak bëgg ak cofeel ak euh, ak euh, cofeel ci sëñ bi ba tax na ñuy góorgóorlu doon ay xale yu ndaw di góor góorgóorlu ci liggéeyu Serigne Touba ah bés bi nag bañ ko yàgg bañ ko dalee def yàgg na ba ñu nekkee ci école bi ba léegi ñu ngi ko commencé di def euh, waaw boobu ba léegi nag ñu ngi koy def te wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di doon doon ay ndaw te di sant Serigne Touba rek. Euh, yaakaar naa boo nekkee ci waar di ko bay euh, muy mag muy ndaw oh, yaakaar naa bëgg nga ca lu baax te élèves yi ñoom ñëpp àndandoo bëgg lu baax ba tax na liggéey bi wéetu ko ci benn yoon ñu ànd ak élèves yi. ñu koy defee noo xamante ne nii teg ko ci yar ak teggin ak taalib. ok ñu ngi leen sant bu baax a baax euh, yéen waa euh, Mawahibou TV euh, di leen di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi ak initiative bi ngeen jël ñoo ngi sant ñëpp ñi nga xamante ni jëwriñ ju mag ba ci ku gën a ndaw di ñaan yàlla mu fekkaloo ñu ko ay ati at ñu gën ñu koy defee nu kawe suñu njort jërëjëf. لا lam ya

Vayeta

Yeah, yeah, yeah,